waaw li ñu dajale fi tey mooy def euh, journée boo xamante ni dañ ci tàggat ndaw yi ak jigéen ñi parce que dañu yàgg gëm ni euh, politique politicienne bi suñu mbir dañoo juddoo ci tund bi am yaakaar ni am nañ ci cër cër boo xam ne dañ ko war a dox moo tax ñu sóobu ci politique bi mais ci biir sóobu ci politique bi dañu gëm ni ñi ñuy àndal yàgg naa ko waxtu du ay xar yuy topp nit parce que gënuma leen gënuñu ma dañ maa nangoo jiital rek bu ñu leen nangoo jiital nag il faut nga jox leen seen gëdd moo tax ma yaakaar ni tàggat leen dina leen permettre bu ñuy ànd ak yow dinañ xam ci nan la ñuy ànd ak yow tàggat leen dina tax ñoom également ñu xam fu ñu leen jëmee lu dul lu baax ñu nangu ko lu baaxul ñu ñu teggi ko mais loolu yemuñu ci tàggat bi rek parce que tàggat bi ndaw yi ak jigéen ñi la concerné mais boo tàggatee nit ki également war nga ko jox ay jumtuwaay pour li nga ko tàggat mu mën koo dox looloo tax ñu décidé tey man ci suma doole bopp génnee 3 millions jégleel ko jigéenu tund wi ñoom ñooy xool parce que village bu ne am na groupement groupement bu ne nekk bu jëlee la mu la mu ca am mu xool lan la ciy liggéey pour au moins seen ëllëg mën a soppeeku donc loolu moo wund bésu tey tey tey tey tey jii parce que li ñu gëm mooy ni que jigéen ñi bu leen jàppalee jàppale nga jaboot gi yëpp parce que jigéen ñi lu ñu am day delluwaat ci kër gi te boo leen jàppale jàppale nga ndaw boo jàppalee ndaw yi tamit parce que il faut que mu am ñuy jël relève bi parce que ndaw yi ñooy jël relève yi noppal seen bàyyi donc boo forlee jigéen yi ñu delloowaat ko ci njaboot ndaw yi ñu mën a jël relève bi donc loolu luy baaxal tund la parce que tund mënul développé wu euh, te ñii fa nekk te ñu fa ëpp également muy jigéen ak ndaw amuñu doole bu ñuy mënee xeexee di di di seen méttit foofu. fii boo jógee cees bi fii gisoo fi lenn fii daal li may dégg ñu ngi wax dañ dañ leen clôturer nañ école bale tabax nañu salle de classe loolu baax na kenn bañu ko mais li ëpp solo mooy le produit c'est-à-dire lii génn ci école bi école bi parce que mag mag magum jëm boo ko joxee paa yi gën a màgget yi boo leen jox xaalis mu tabax miir euh, clôture clôture école tabax salle de classe parce que loolu amul ingéniosité parce que loolu moom franchement amul ingéniosité li ñu soxla tey mooy ni que ñu fexe ba jigéen yi bu ñu bëggee déployé wu ñu mën a déployé ndaw yi noonu mag yi noonu ak loolu mais loolu gisuñu ko fi gisuñu ko fi yàlla daf ma may ma nekk avocat bu njëkk ci tund bi parce que boo xamante ne nit ñi soxla dina la bind demande la soutien wala mu ne la parrainel ma activité bi ma xam ni rek du alal buy jóge ci poche mooy développé bo te boo amul posture politique boo xamante ne mën na la permettre nga am accès à certaines informations nga mën a am accès ci yenn nit ñi pour ñu mën laa indil yu bëri mel boo jëlee mbirum courant par exemple du poche moo koy lijjanti boo jëlee mbirum ndox du poche moo koy lijjanti boo jëlee mbirum tëli du poche moo koy lijjanti te loolu ay jafe-jafe la ci tund bi donc boo duggul ci politique pour mën a wax ak ñi yor mbir yooyu pour ñu mën a wàcc fii du du sotti moo tax dama dem ba à un moment donné ma xam ni toog nekk dans la société civile nit ñi di la woo ngay dem di dugal sa loxo sa poche di maye fajul seen soxla parce que loolu mënul tax mënul taxaw ci la décidé dugg ci politique. parce que dama gis ne également tund wi war naa wes fi yéen ñi fii ñëw xam ngeen tund wi xam ngeen li fi am ci capacité intellectuelle moi je peux dire que Morolan est plus diplômé au mètre carré c'est la commune la, la plus diplômée au mètre carré dans le département. ça je peux parce que école bi muy am fii Morolan boobu kenn xalaatul sa indépendance. c'est vers les années 1920 je ne sais pas si j'ai peur de me tromper donc booboo tax euh, façon jàng bu ne am na ci tund bi mais boo gisee tund bi fu mu toll ak ñi nga mën a dëkk ci dëkk bi ñu ne fii lañ dëkk pour man euh, c'est pas une fierté mënoon na weesu fii man kenn dénkuma dara ci tund bi mu tund bi la rek donc mënoon naa toog la ma yor ma def ko si ma suma bopp parce que kenn dénkuma ñi fi indi bourse yëpp ci budget wu tund wi lañ koy jëlee mais man damaa jël ci sama alal ne euh, damay jàppale doomu tund wi ku ci bëgg jàng te am jafe-jafe jàng ku bëgg a def formation am jafe-jafe formation ñu jàppale ko mu jàng parce que ñooñu bu ñu jàngee dañuy dellu fii dañuy jëriñaat dinañ njëriñ ba jëriñ ma sax man mii peut-être donc loolu lu ma war a def la mais ñi fi nekk di def loolu ñoolu dañoo xaar ba ñu denk leen jox leen alalu réew mi pour ñu war koo tasaare ci éducation parce que ci la bokk ñoom ñoom la ñuy loolu lañuy def parce que la ñuy def jógewul seen poche la ñuy def suñu budget leen ñun ñii ñoo ko liggéey jox leen ko ñu koy tasaare mais bu ñu ko tasaree woon ci anam anam anam yu leer sax kenn du wax mais xam nañu bourse yooyu nu muy demee bourse yoo xam ne boo farul ak ñoom doo ci jot loolu du bourse alors ci alalu tund wi la jógee loolu du lu may def man li may def su ma coobare bopp laa koy def su ma doolee bopp laa ko def di ñaan yàlla mu mënal ma ko ñaan yàlla également bu ma dénkee tund bi lañu moom ñoom ñu delloowaat leen ko la ñu am nii sax ñu dolliwaat ci leen ci c'est-à-dire ñu yëwan ci delloo leen seen alal parce que alalu nit ñi nga leen di delloo boo ko yoree donc ku mën a joxe alalam pour njëriñ nit ñi defe naa bu yoree alalu nit ñi dina gaaw ci delloo ko ci nit ñi donc loolu daal lay ñaan yàlla en tout cas man pour pétrole ak gaz dama foog ne waa Sénégal dañu war a sant yàlla bi ñu fi gisee pétrole ak gaz dañu yaakaar ne buñ koy dina doon njëriñ changé lu bëri ci dëkk bi maintenant am na ñoo xamante ni parce que tribune politique lañ bëgg parce que mënuñu woote ba nit ñi fekk leen ñoom ñooñu ñooy profité ci ay fen ay sos bëgg a convoquer nit ñi à manifestation mais la ñu wax ci pétrole bi xel bu dal war naa xam ne loolu mënul nekk. xel bu dal war na xam ne loolu mënu lekk parce que tout simplement pétrole bu génnagul nit ñi naan détourné nañ ci 6 000 milliards donc pour man waxu caaxaan la Aliou Sall bu gore gore di woon ba gore di géew ma ne bu ko joxoon 6 000 milliards dina ko nangoo jël parce que 6 000 milliards xejul fenn boo koy jël xanaa pour jox ko état mais boo ko naree jël sa jëlu bopp moom defe naa ni loolu euh, dof dof la rek parce que mënoo ko sax mënoo donc dama jàpp ni mbirum pétrole bi wax wax ji bëri na ci mais euh, bu président de la république décidé que ñu saisir justice mu càmbar lépp lu ci nekk ñi ci xam dara te ji taxaw ci bedd bi naan. pétrole bi jaar na fii jaar na fale nañu dem euh, wax yi li ñu fa xam surtout que ñu leen di woo kuñ fa woo na nga wuyu l' essentiel justice bu paree bu ñu waxee ni kii moo def kii def ku ñu jàppee ne Aliou Sall la ñu dal ci kawam. parce que Aliou Sall mënum gënuma soxla xaalis boobu lu tax mu koy jël moom kenn te suñu alal la donc bu dee nit ñi jàpp nañ ne justice jàpp nañ ne Aliou Sall dafa def lox yëpp woo na ci opposition woo ci société civile pour que li ñuy càmbar ci mbirum pétrole ku ne fekkee ko mën ci wax xalaatam donc kuy def loolu xanaa du moom mooy sàcc ne rek waxu politicien la nañu déglu justice ci la mu ciy wax. merci.